wa lima ma xalaat rek moy maa ngi sant Ousmane je crois que euh, xawtun nga fekk ko fi sama xarit la ñu ngi déggante téléphone bon mi ngi liggéey Sénégal 94 milliards amna, amna? amna c'est sûr 94 milliards état Sénégal jël engagement 94 milliards amna lu jotté a kon xamna ni li nga xamanteni mom li ko wara a sant siwul giñ ko siwul ba nit ñepp manam yëg ko ndax bu dun ton lolu nit ñi dun ko xam mais état moy responsable premier deuxième moy Mamour Diallo mi nga xamantene mo signé ba xaliss bi am lu ci jotta genn ndax ku ne xam na ni titre ak créance bobu nonu fay bi ko mom 2 milliards 5 lañ leen jox mais nit dañ la mané joxe 2 milliards 5 ñëw wax ak yow ci complot ak deal nga jox ko 94 milliards mu am 91 milliards intérêt yo xamanteni dans bénéfice la si moom. état buy porté si dafay porté si ñaar yëpp la Sénégal yëpp ñoo bokk yem si ñoom ba pare kooku amul sax si créance ndax ku ne xam na ne cour d'appel euh, nanguwutoon li nga xamante ne mooy décision bi mu am feneen fu mu ko jaare dégg naa bon ba am li mu am mais na comme moom déposé na plainte plainte bi mais na ko procureur ubbi xam naa ni moom procureur bii nga xamante ne procureur Macky Sall bu APR nekk procureur ministre de la justice nekk maanaam ministère bu Macky Sall duñ bëgg lu leer mais doyen de justice mi nga xamante ni Sénégal lu toogal moom na xool dossier bi ñu àtte ko Mamour Diallo mooy premier responsable ñu condamné ko amande ko xaalis bi tam ñu nanguwaa ko dugg ko si kees buñ ko deful tey ji tamit ëllëg ñun bu njëla réew mi dañ ko def incha allah mais xam nga loolu ñuy yàq rek la mooy waa APR yi nga xam ay bojo bojo lan sonk du seen morom ndax heure bu ñu gisee sonk dañuy tiit xëy na peut-être loolu moo tax ñuy wax loolu mais xam nga ne sonk pass na loolu ndax nit ko man sonk du ko def xam nga ki nekk président ëllëg yàlla moo ko est-ce que man du ma nekk président bu ëllëgee oui bu def sonk premier bu ma nekk président ëllëg sonk laa de premier ministre waaw